Fall, ancien international, ancien joueur de l'Olympique de Marseille euh, et du Stade Malherbe. Ah, mais initiative bi c'est surtout il faut il faut féliciter surtout les les gars de Teungueth par le biais du président Youssou ñoom ñoo war a remercier parce que ñoom ñoo mettre euh, en place ce projet là pour essayer tout simplement aider xale Teungueth bi dans le domaine du football au niveau de la formation de la ça ça c'est <laughs> ça c'est surtout bon Youssou moom projet am mais projet Tëngéej am na Tëngéej bi nu sport Tëngéej. waaw voilà exact bi nu culture la aussi c'est vrai c'est extraordinaire ça bi nu bi nu de culture la aussi. et donc euh, par le biais du sport bon on voit que y a beaucoup y a une y a des équipes yoo xam ni ils sont en train de sortir ah de de sortir de sortir mooy avec Tëngéej bi ñu ngi dina dem équipe yëpp voilà donc ils sont en train de faire de faire euh, le le le trou dans ce dans ce championnat mais Tëngéej dafa mos a nekk ci culture ak ci sport donc c' est à partir de là que ñoom au lieu ñu dugal ko ak feneen parce que peut-être que ils savent beaucoup ils connaissent beaucoup plus sur le football après dañu ngi dugal dans le football. tey jii ñu gis ne boobu ñu bëri ñëw nañu ñu seen war a xaar waaw waaw mais bon. choisir élimine boo tànnee rek il faut nga am ñoo xam ni voilà da nga leen liggéey day métti surtout que ay bu ñu nekkee xale quoi mais mais aspect bi c'est beaucoup plus euh, l'aspect aspect du football bi di laaj rek mooy l'aspect technique ngeen xool aspect technique bi aspect tactique bi aspect physique bi voilà loolu rek ngay xool l'aspect psychologique mental euh, jour yi mais loolu la ngay xool pour essayer de voir euh, les jeux là qu'il faut à partir du projet parce que yow idée bi nga xam ni moom la ñu mettre en place projet bi nga xam ni moom moom moom moom la ñu mettre en place projet bi ci loolu la dépendre pour jël ay joueurs yi nga xam ni waaw waaw non mais lépp ci la bokk <laughs> lépp ci la bokk yàlla plaisir na bokk yàlla plaisir voilà football football ça englobe le plaisir yàlla plaisir yàlla plaisir na bokk bon après plaisir comme comme comme ni ñu ko waxee nii après maintenant il faut regarder nag maintenant le côté aussi affaire bu ne boo nee football bi tëli boo nee football contrôle boo nee football bi passe voilà donc da ngay xool nag léegi côté technique après côté technique bi bu xoolee ba pare après léegi côté physique bi ça va venir peut après mais il faut aussi regarder le côté mental aussi waaw parce que am na ay joueurs yoo xam ne gis nga bu ñu yoree bal yenn saa yi ñu tax ko ba pare du dox au lieu ñu taw jéem a xeex di daw récupérer bal beeg yooyu yooyu parce que boobu dañ koy xool parce que faut pas euh, seulement maintenant la la technique ne suffit ne suffit plus maintenant pour euh, pour sélectionner des des bons joueurs ah il va falloir l'aspect engagement voilà aspect engagement bi aussi da ciy bokk quoi voilà exactement.

ñooñu la ngay ñan lan def lañ ci commune parce que préfet bi normalement war na fa indi lu mat vingt cinq jours préfet bi mooy jëm quinze ans yi lu mat vingt cinq jours léeg-léeg ñu jógee ci seize ans ba jëm dix huit ans yeeg dix neuf ans yi daa wax fa vingt cinq cinquante jours ñu bu nekk cinq ans non ñoom ñoom ñoom seen projet ñoom ñoom ils sont ils sont vraiment très ambitieux ñoom ñu ngi bëgg yóbbu ci kaw ñoom ils sont vraiment très très très très ambitieux donc ay gars yu bëgg nañu affaire bi trop donc à partir de là Euh, ku ci mën a jàpp rek surtout au niveau des sponsors parce que c' est pas facile de mettre en place euh, des équipes comme ça parce que si les sponsors ils sont pas derrière ça du mën a dem donc d' autant plus que comme ni nga ko waxee léegi nga ni Tëngéej bi ñu culture la bi ñu football waaye bi ñu culture la aussi mais à partir de là il va il va falloir que les autorités yi nga xam ne nekk ñoo ñooy notre autorité Tëngéej ñëpp képp koo xam ne war na ci mën a jàpp rek ne serait-ce qu'un tout petit peu sax benn ay ball ay leneen loo xam ne sax mën a joxaani sax mais indi indi rek après boo yi mën a dajale yëpp mën a def seen liggéey comme ni mu ah non mais sport Tëngéej bi sport Tëngéej ñu ngi dox parce que y' a des jeunes yoo xam ne y' a des fils de Tëngéej comme Mahet Mahet les jeunes Mahet Diop voilà y' a des voilà exactement y' a d'autres jeunes de Tëngéej yoo xam ne ils sont en train de véhiculer loo xam lu ñu am rek ñoom. xalaatuñu feneen seen seen si nga xam ne fa la ñu cosaanoo buggoo fa juddoo balaa ngay jël balaa ngay jël dara naan naan yaa ngi ko yóbbu feneen nga yóbbu ko fa nga cosaanoo fa nga cosaanoo le jeune Mahaïda Diop je le félicite jamais là c'est ce qu'il a avec euh, Yana Diouf peut-être Yana Diouf macha allah ñu indi ko bokk ko pour essayer de le, football à, à Tenguet, ça C'est pas pour que le, euh, Tenguet est champion chaque année. C'est une félicité. Hein? Voilà, ñu dem si nawet bon nawetaan euh, pas trop que na <laughs> nawetaan li ci xam nga moo ci loolu bu nit ñi arrêté rek xam nga nawetaan affaire affaire quartier la affaire quartier fu ma am day métti man sama quartier bi boo na ci gannaaw ñii bu ñu bëggee ñooy gannaaw. mais tant que am indiwuñu sportivité bi ci biir voilà nga xam ni dañuy ñëw bokkoo ci bokkoo ba jarul sax ñuy séparé dañuy bokk ci ñun football match bi match bi tas ñu tëgg seen tëgg yooyu ñuy tëgg njaaba seen ay njaaba yu neex fecc ay seen ay fecc yu neex affaire bi jeex ku nekk tasaaroo ñu ànd même bu ñuy dem sax ñoom ñu ànd waaw ñaari ñaari groupe supporters yi ànd dem ba ko ku nekk nga sa morom ba fa nga dëkk voilà loolu loolu mooy sportivité mais mais li ci métti fi nii nii et la violence sans plus que am na ñu ay pas yu bëri ak wala pas xam ne dañuy bëgg indaale seen doom xam nga bu xale yi doo ko mën a indaale ci biir fu war yenn saa yi nga bëgg génn kër ga sa benn sët jàpp euh, pantalon bi waaw yóbbaale ma stade waaw léegi boo yóbbaale nga ñëw fii ñuy sànni ay xaar ñuy def ah day day waar voilà kon bàyyi ah, baax yéen tamit parce que yéen métier bi ngeen def nii moo ëpp importance li nga xam ne moom nekk fii yéen da ngeen di ay message te seen message dafa am importance ba pare day foo leen ko sànni day sonn donc léegi yéen tamit euh, affaire bi nga xam ne gars yi suñu nuñ fii nga xam ne gars yi suñu nuñ yéen tamit de par la presse yéen tamit ngeen jàpp bu baax